salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di ànd ak yéen saa su nekk rek di leen toppal li nga xamante ne si nag mooy xew-xew ci jamono ji fiñ toll nii nag gis ngeen li nga xamante ne si nag moo xewoon démb ginnaaw biñ ne nag kii di Ousmane Sonko yoon teg na ko ay daan daal nañ koy condamné lu toll si ñaar ati loolee nag tax ndaw yi daal di meex ba futtu yàqu-yàqu yi nag bëri na lool ci dëkk bi ay oto yeneen nag yeneen yu ni mel daal na ci yàqu wante nag comme ni ngeen ko gisee nag ñu ngi fii ci BRT bi nekk fii ci Géejawaay gis ngeen dégâts yi nga xamante ne si nag moo fi am vitres yi toj nañ ko ci suuf yi yëpp ay ay verre la barrage bi nga xamante ne si tamit nag moo nekkoon fii xale yi dañ ko daal di daaneel mu doon loo xamante ne si lu doy waa te du doon lu metti ci lañu daal di profité nag daal di masawu ñi nga xamante ne si nag daal nañ ci ñàkk seen bakken bu sukkandikoo ci ministre de l' di Antoine Félix Ndione moom moomee nag ni kiy démb daal di nay xamle ne ndaw yi ci ñàkk seen bakkan buñ ko xaymaa toll na si juróom-ñeent ñu leen di masaw bu baax a baax te di leen jaale. sëñ bi na nga def tur bi naka la. sëñ Babacar Seck. sëñ Babacar naka nga gisee li nga xamante ne si moo xewoon démb ak dégâts yi ci am. waaw di ko ñaawlu ndax euh, ñëpp jàmm lañ bëgg euh, dafa am suñ benn kilifa gu mag bu ñuy wax Barham Diop yàlla ko yàlla yërëm nee na euh, noonu jàmm mooy injustice injustice fu mu maanaam fu mu fu mu xëy jàmm dafa yendu jàmm it Aziz euh, tamit fu mu fu mu yendu jàmm dafa fanaan jàmm dañ koy dañ maanaam dañ koy sàkk di ci dox di ci wax gis nga dialogue bi passé discours bi Cheikh Bamba Dièye yëkkati ñëpp war nañoo dellu déglu ko bàyyi ci xel ndax moom nee na jàmm dindili nee na jàmm da euh, maanaam dëgg da jiitu maanaam dëkk nag dëkk nag bu dee bu dee dañuy dëkk bu dee dañoo bëgg dëkk dëkk dëkk ak nit ñi ci jàmm ba pare ñi ñuy jiite doxaluñ dëgg defuñu dëgg eh, di àtte ni mu leen neexee di doxalee ni mu leen neexee ko maanaam dëkk boo xamante ne ku am ndey ku ma amul ndey la yow ku far ak yow lu wax lu mu def amul benn problème keneen ko farul ak yow lu def muy musiba loolu jàmm mënu fa waaw dégâts moom. suñu alal la suñu yëf la ñoo ko moom dégaluñ kenn mu yàq ndax yàq moom baaxul ndax buñ ko yàqee it dañ koy def gis nga liggéey bi mu commencé bi ñu gasee problème yi mu indi circulation beeg dëkk bu xat bi ñu tool liggéey ba toll fii mu yàqu nii encouragé wuñ ko déglawuñ ko ndax yàq moom daganul baaxul mais nag loo ci man bu dee dañ lay jaay doole amoo dara loo def amoo benn pexe boo def dañoo wax ni nit nit boo nee duma ko topp sa parce que fi ngeen jëm dafa soriwul yaa ngi dégg léegi beneen affaire bi ci am mooy bu ñu la waxee ni la euh, nu ñu koy waxee euh, euh, comme ça yàq gi nii yow comme mënuñ mënuñ leen a jot amuñu fenn fu ñu dem ñoom xale yi li ñuy def mooy li leen gën a li luñ foog ne bu ñu ko defee seen xol tàng wala ñu gis ko loolu rek la ñuy def. déedéet mënu ko saafara. tey bari na. bari na mais mais mais mais comme ñoom amuñu pexe ñoo ñoo pexe lii rek lañ am lu ñu def nii rek lañ mën a def. mais lii bu subaa tamit ñoo ko waroon a ñoo ci waroon a jox jëfandikoo. encouragé wu ma ko rafetul jaar yoon du dëgg du yoon kenn waru ko def mais amuñu pexe amuñu leneen lii lañ mën a def moo tax ñu def ko. solo yow kan moo nekk responsable ci li xew nii si réew mi. ñëpp kilifa diine yi ci lañ ñi mën a wax ci lañ ñëpp ci lañ ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa am lu wax. dani ñaara ngi nii bu ñu jubee lépp baax bu ñu dëngee lépp dëng mooy suñu njiit yi ak suñu borom xam-xam yi suñu njiit yi bu ñu dëngee suñu borom xam-xam yi dëng mais dëkk bi fa lay jaar yoon ñoom ñooy responsabilité yi am xam dañoo war a wax ñuy jiitee te ñi ma dëgg ñu wax comme Cheikh Bamba Dièye ni mu ko doxalee loolu mooy dëgg mais nii moom bu ñu waxut dañuy wax ni ku artuwul di nga atti instant ba ñu waree wax waxuñu ba lii am ñu bëgg fi nekk lu ne ñu dugg ca mënul nekk. tey yan jéego lañu ñu war a mën a tekk ba nga xamante ne si lii dina jeex ci réew mi. mooy doxal dëgg jël injustice xeexak moom ba mu jugee fii di def dëgg dëgg daal fu mu am jàmm am fa fu mu amul jàmm dafa am lii mooy dëgg salaamaaleykum. nga def waaw laa tudd. ban jàngat nga am ci li nga xamante ne si moo xewoon euh, démb. ah li ma jàngat daal mooy euh, réew bi toll na foo xamante ne. impasse la responsable yi nga xamante ne ñoom Macky Sall war na xoolaat taxawaayam xam nga euh, problème bi moom li ko andi mooy sélection mandat yi nga xamante ñu ngi koy dégg ci réew mi comprendre nga donc loolu dafa dafa indi problème ci réew mi d'abord moom euh, ni oui ni ni oui ni ni donc dafa poser problème parce que euh, peut-être mën na xool ci Amadou Toumane Touré. mi nga xamante ne dafa doon benn mandat lay jël benn mandat lay yem euh, fat finalement gis nga li ci mujjee topp militaire yi ñoo mujjee jël réew mi parce que après ñi nga xamante ne dañ nekk ci yenn institutions yi dañu commencé di ku si nekk di taxañ li nga mën a taxañ jël ko jël fa sa poste yóbbu ko mais li ma si bëgg wax mooy euh, lii nga xamante ne xale yi ñu ngi koy yàq xale yi dañu war a xam ne euh, seen réew la ñuy yàqal seen bopp la ñuy yàqal parce que tey jii du xaalis boo xamante ne Sénégal ci gafam la ko génnee. daf ko jëli bitim réew andi ko ci réew mi pour defar réew mi Macky Sall dañ ko teg ci réew mi pour mu defar donc bu fekkee dañuy defar moom lu mu leb ñëw andi ñu yàq ko donc finalement euh, ñun ñi nga xamante ne ay responsable ay père de famille ñoo nar a payer les pots cassés parce que euh, li ñuy yàq yëpp day dugg ci biir famille yi dugg ci biir euh, comment dirais-je dugg ci ceeb beeg diwlin dugg ci lépp donc y un problème donc xale yi il faut ñu xam ne li ñuy yàq seen alal la. donc loolu laa amoon lu may wax ci ci yàq wi. tey euh, BRT bi gis nga ni ñu ko def UCAD euh, fac droit tamit daal nañ koy tàll ba nga xamante ne si kenn mënu fa jàngee tey yooyu noonu ban impact la mën a jox suñu économie dëkk ak njàng mi. xam nga xam nga xale yi mooy li ma wax rek euh, président moo war a gindi xale yi parce que moom dañ ko teg ci réew mi parce que tamit benn affaire dafa am réew mi dafa toll foo xamante ne. xale yi éducation bi dafa mel ni ñun parent yi dañuy raté parce que boo xoolee euh, ñun bu njëkk amuñu woon sañ-sañ suñu maître ren romb fenn ba ñu xool ko sax rawati nag euh, sëriñ kilifa diine wala ñuy xotti war ma sëriñ sëriñ Seeg armée bi muy euh, service d'ordre bi extra extra donc xale yi toll nañ foo xamante ne léegi pratiquement seen yoon nekkatu si dara comprendre te loolu éducation de base bi moo man dama jàpp na moo xaw a moo xaw échec quoi mais loolu bu échecgee bu parents yi xawee échec tuuti tamit moom mi nga xamante ne moom lañ dénk réew mi dañ ko dénk suñu garant ak suñu suñu lépp pratiquement moom moo ñu war a garanti sur tous moom tamit dafa war a jël ay responsabilités mooy bu fekkee réellement munul gérer réew mi ah mu jox ko keneen ku ko mën a gérer parce que tamit affaire bi dépassé na ko dépassé na ko te bu dépassé impact yeeg yëpp si kaw population bi lay dal gis ngeen li da xam dal euh, lu am si sous région bi donc y a problème donc loolu laa am si lu may wax si Macky selon yow kan mooy responsable ci li xew lépp. responsable bi euh, politicien yi la parce que li fi am deux personnes yoo xamante ne ñoom ñoo am problème ñi jiñ ko politicien yi donc ñu ne état bi moo ko def moo nekk ci ginnaaw moo tax ma ne donc politicien la parce que ñoom politiciens yi ñoom ñoo taal réew mi te bariwuñu ci réew mi te réew bi bu yàqoo tey boo demee libi actuellement nit ñaa ngi wax ci ndox di ko naan. te si lu mel nii la départ donc nii tey jii boo demee ak tey sa matin maa ngi wax soxna si damal marché mu ne benn marché biwul donc moo lay wane ne yi commencé na def dégâts donc nit ki man nga xam fu muy tàkk-tàkk fu muy commencé mais doo xam fu muy yem conséquences yi naka sénégalais yi mesurer parce que ñun amuñu lu dul Sénégal bu Sénégal tàkkee ñëpp ñàkk. loolu laa am ci lu may wax ci moom. ba nga xamante si nag dinañ mën a am benn solution ba lii yëpp daal di jeex. dialogue bi d'abord am na ñi nga xamante ne demuñu ci dialogue bi bu fekkee bëgg nañu réew dañu war a dem dialogue parce que tamit lu la metti mënoo toog ci biir kër mu faju te waxoo ko il nga dem ci dialogue bi wax ne lii moom metti ñiy dégg war a dégg ñi war a àtte àtte loolu mooy logique benn. ñaareel ga mooy euh, boo xoolee réew mi tey ji DRT bi ñu monté euh, ñaata arrêt ñu fi am matul 30 su ko xamante j'espère compté ma ko mais su matee 30 ci mais fekkoon DRT bi chaque personne chaque arrêt dañ fa dañ ko def dañ fa mettre benn benn euh, def ay gendarme def ay gendarme jox leen arme ñoom ñu menacé ne ku fi yegg si ku yàq li ñu dal sa kaw boobaa loolu dam parce que boo xoolee xale yi ba ñuy départ fee dem dañ nekk dañuy dem kër Aliou Sall fa la ñu jubal directement mais garde yi dañoo tiré feu ci kaw tëf tëf ba kenn ñëpp ko bëgg kenn bëggul de ñoom ñëpp dañoo daw dañoo tas donc moo lay wan ne yar ci couvre-feu bi ba ñu génnee yar yi ñëpp dañu daw dugg état bu fort mooy def loolu benn ñaareel ga mooy amul benn dëkk boo xam dafa développé te newuñu président bi dafa du dictature amul ba ci Gambie bu ndaw bi ba Yaya jama demee tey dañuy yàlla lal yàmbaa di ko jaay te loolu lu ko waral ki fa nekk dafa nooy comprendre parce que yaay jàpp ba mu fa nekkee dégâts amu foon donc loolu laa am su ñoo wax loolu président moo war a jël ay responsabilités xam ne réew lañ ko denk dénk ñu ko benn affaire bu ndaw voilà ok merci beaucoup mahabbatullahi wa hubbil muntaqa diini wa qaadalina zawit tuqa xibaaru rabbi wa jazaawul maahi ilay dama ko jëlal armaaxi daayira subdu salaam bu Anvers mooy woote année lu muy woote ñaareelu édition jaayante ngir joxe ndigalu Cheikh Mouhamadul Mourtada yal na yàlla yokk leeram te taasu ci barkeem ci ñu amal fi kërub lislaam ci ni mu ñu ko digale woon kon ñi ngi amal bés boobu ñetti fan ci weeru juin fan lañ koy amalee ñu ngi koy amalee fële ci hôtel Mercure Disgen Lay 94 2018 fii ci Antwerp. Euh, ki ñu ciy jiital si woote bi mooy son excellence monsieur l'ambassadeur du Sénégal en Belgique monsieur Baye Maktar Diop. ak daara yi nga xamante ni yëpp ñoo bokk si confédération Belgique Hollande si njiitalu sëñ Khadim Mbegere sëñ Abbas Dieye bu Anvers. sëñ Babacar Ngom bu liege sëñ Abdou Razak Ba bu Moos sëriñ Ibrahima Niang bu France 51 sëriñ Ibra Jaxate ca Bruxelles sëriñ Bambatal ca Touba Namur waa daayira Tidiane bu Anvers si njiitalu sëñ As Malick Ndiaye daayira Tidiane bu Gand si njiitalu sëriñ Arona Sall daayira Tidiane bu Bruxelles si njiitalu sëñ Maodo Dia daayira bu Liège si njiitalu sëriñ Alioune Fall ñoo ngi ciy woo it sëriñ Tafsir Sall ñoo ngi ciy woo tamit daayira Laayeen yi si njiitalu sëñ Ousmane Ndiaye daayira Alpulaar sëñ Imam Kan mboolemu association yi nga xamante ni ñoo nekk fii si dëkk bi Sénébel si njiitalu Abuna Mbay ñoo ngi ciy woo waa Touba si njiitalu Sëriñ Xalil Mbàkke daayira Jaalibatu Maraaxib ba nekk ca Paris euh, si njiitalu sëñ Xaadim Silla jëwriinu daayira Taverni ba nekk ca Paris di Sëriñ Souleymane Diouf euh, di ci woowaale tamit mbooleemu daayira yi nekk ci sous-région bi yëpp bàyyiwuñu kenn bëgg nañ ñëpp teew fa 17 heures fekk ñu dugg saal ba toog ñu ñu dim ñu tàmbali liggéey bi bu 17 heures jotee xasida gi ubbil ñu lu doolu ji fanweeri simili bu 17 heures 30 jotee euh, sëñ Modou Abdoulaye Mbacke baaxee ñu ci waxtaan jaayante ak l'islam bu 18 heures 30 jotee rajas ñu yëkkati xasida rajas yi 19 heures ñu waxtaanee situation finance bi soxna Ndeye Fatou Fall moo ñuy defal loolu 19 heures 30 ñu leeral li xam mooy démarches yi ñu jot a def booba ba léegi ci liggéeyu sëñ Touba ci wàllu njënd kër gi Baye Abbas Dieye moo ñu koy defal 19h45 ñu yëkkatiwaat xasida rajas ab diir 20h nag ñu tàmbali jaayante bi ba 22h muy toll ci ñaari waxtu programme bi war a tëjee entre 22h 23h incha allah. di ci woo soxna yi di ko jiite ci daayira Maam Jaara Anvers bi di leen woo ñoom ñëpp di teg woote bi suñu loxo yaay soxna Maam Ndiaye di woo waa daayira Maam Jaara Bruxelles ci njiitalu soxna Binta Gueye di woo waa daayira Maam Jaara liege ci njiitalu Soxna baam bi diwoo waa daayira Maam Jaara Hollande si njiitalu Soxna Tëmb si di woo waa daayira Tidiane yépp si njiitalu Soxna Ndey Ami Jaw di ci woowit euh, Soxna Mariam sàll mu Serigne Abbas Sall kàddu gi nag moom kàddu yi soññere la rek jëm ci bis bi nga xam ne moom lañuy amal li bisu jaayante ci wut tëruk lislaam ne ko Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke daan tuddee ñuy kër Serigne Touba fii ci Belgique Anvers li tax nag ñuy wooti bis bi ak jaayante bi muy wut kër Serigne Touba muy barab boo xam ne ca la ñuy tàggatoo di barabu yar di barabu jàngale di barabu dimbalante kon ñu ngi ciy sàkkul ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jàpp ci waaye ñëpp it jàllale ko du mi ni dararin wakkat di FG Partner Shipping, un outil gagnant-gagnant. FG Partner Shipping est une plateforme qui met en relation voyageurs et expéditeurs. Avec FG Partner Shipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût. FG Partner Shipping vous facilite le transport de bagages grâce à un rayonnage d'environ 10 à 20 km de votre lieu d'habitation. Que vous soyez en France ou au Sénégal, si vous prévoyez un voyage et que vous avez de la place disponible vos valises, nous vous proposons de vendre cet espace à un expéditeur qui souhaite envoyer des bagages de la France vers la France, de la France vers le Sénégal, du Sénégal vers le Sénégal et du Sénégal vers la France. fg-partnershipping.com. Contact arobase fg-partnershipping.com. Avec FG Partnershipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût.